la dans votre journal People de la semaine à la présentation Seydina Tange Tandian mu Serigne Saliou sur le canal 33 Leral TV canal 8 TV Orange canal 28 en a de Dakar à Madagascar ou sur les réseaux câblés ou sur l'application Leral boo xamante ni am na fi ayubés am na benn waay bi nga xamante ni moom xaw ma rappeur la xaw ma lu mu doon dañ koy gis ci réseaux sociaux yi muy yuuxu di saaga di xastaate mais nag ay fan yu bi ñu gis dafa jàpp doomu Thione Seck bi di wali balaago sekk di saaga di yëkkati ay kàddu yu ñaaw di teg ci deram moom ak keneen ki nga xamante ni juróom benni junni problème la tuddee boppam dëkk foofu ca Pikine di liggéey ca Patisen ginnaaw loolu nag à chaque fois dañuy dem ci TikTok bi dem ci réseaux sociaux yi yëkkati ay kàddu yu ñaaw di saaga kii di Wally sekk di saaga askan bi man mi si sama bopp dañ may saaga parfois su ma joxee benn information te xëy na ki leen yabal ñi mu yor information boobu arrangé wu leen day yónni ñooñu pour ñu nekk di saaga ginnaaw loolu nag kii di waajooju nga xamante ni wax ju rey lay yore nekk ci réseau sociaux yi di yuuxu di saaga ay Bamba bàyyiwul kenn ñëpp lay saaga amoon na fi problème ak kii di Nabou Dash ba yoon tegoon ko loxo ñu bàyyi ko dafa dem benn interview ca benn sit bu ñu tuddee Desprot te ki ko moom nekk états uni foofu ca Cincinnati mu wax fa kii di doomu Thione Seck Wally Ballago Seck dafa takk takku suuf ba noppi yabaate tax mu koy woowee Uli Seck ki mu takk nag du kenn ku dul Ndeye Astou sal ex Miss Sénégal bi nga xamante ni animatrice la foofu ca 2STV bi nañu déglu ju vidéo bi dellu si ndaxte bi mu waxee takk bi sax wax na sax imam bi takk woon sëy bi nañu déglu ju vidéo bi. internaute ñu leen indi nee na nag euh, euh, euh, rakku Macky Sall wala doomu Macky Sall la Wally eh, Seck. Eh, eh, waxuma lool de non non booy non non non non booy. yaa fi wax rek non non booy defal naa njiitu réew mi nu mu sant nga ma wax. ma ni la Sall. mooy insigne bi waaw mais mais waxuma la doomu njiitu réew booy bu ma waxal lu ma waxul booy. la beneen indice kon ñu gën a leer xam nga ma la A point Sall. waaw léegi xam lu ma la si dolli. waaw ancien Miss Sénégal la woon. ancien Miss Sénégal. <laughs> jeex na tàkk xam nga léegi sax mujj naa la leeral ah. <laughs> ah. loolu kàddu la merci beaucoup sant naa gërëm baax a baax ki ma habillé. jël ko ci kaw mi ngi noonu Ndiogu Fashion House la ñu koy wax merci beaucoup sama sama sama rakk ji tubaarkàlla yàlla na sa jàmm yàgg ayca mu ngi noonee jaa ngeen jëfatee rendez-vous à très bientôt. daas euh, am na ku ne ma euh, yaa takkale ngi la koy jiiñ loolu tamit mu garaaw la. gis nga nit ñi. Mm-hmm. bu nu bëggee ay vie wala bëgg site bu dox nan ko jaaree ci yeneen ngir bañ di dugal doomi jàmbur ci lu lislaam nanguwul mhm. Wally Seck li mu représenté ci réew mi mhm. ak li mu doon ci réew mi ak li ko soxnaam si ji ñu ànd un ba dégg trente mhm. bu doon takki waaw dana takki neneen takk nuñ daan takku suuf jaam ñaa may tooñ nag alaaj Medoune Diouf jaam ñaa ngi may tooñ. réew mii de Serigne Cissé waxagut fi lu naan kaay leen seetaan. waaye turu Serigne Cissé du turu wu ñuy caaxaanee. turu Serigne Cissé du tur wu ñuy kii di wax ak yéen Serigne Mansour borom daar jëf fëgg boppam Serigne Babacar Sy la gëm moom la doyloo borom mars. ci mars laa de. mars ci mars laa ne weeru suma sëriñ Seexul Xalifa sëriñ Babacar Si. ci la Adji Sarr moo tax wax jooju. Mhm. rus naa sax di ko tudd. waaye ñiy wax. naan sëriñ Cissé dafa takki woon takk suuf moo ko Oustaz Modou ñoo takkali woon Wally Seck jabar. nit kenn du ko wutal ay noon ci réew Wally kilifa la sëriñ Cissé kilifa la Modou Fall kilifa la. bu ma kenn dugal ci ay détails yi. kon yaakaar naa ni ñoo seetaanoo vidéo bi nga xamante ni wax na ko foofu ca DS Prod ba noppi tuumaal imam bi nga xamante ne nee na xam na ni moo takki woon dégg ngeen imam bi lu mu ko tontu ginnaaw loolu gis nañu benn phénomène bu bees boo xamante ni am na fii ci Sénégal. kooku ak juróom benn junni problème moom it ay vidéo yu bëre ñu ngi ci internet bi fu mu toll mu ngi saaga kii di Wally Ballago Seck fu mu toll mi ngi yëkkati ay kàddu yu ñaaw di ko teg ci Wally Ballago Seck ginnaaw loolu nag plainte dafa jib plainte bi mu jëbee section de recherche bu Faidherbe lañ ko déposé kooku ki ñu njëkk teg loxo muy kan kooku doon wax Wally dafa takk takku suuf kii di Ndeye Astou Sall bi ñu koy jàpp ñu ngi fekk ci moom ay ngànnaay bi ñu ko téyee section de recherche bu Faidherbe le lendemain la ñu jàpp kenn kii nga xamante ni juróom-benni junni problème la tuddee boppam nekk ci Pikine di liggéey foofu ca euh, société Patisen te Omaïs moom ko société bu toll ni Patisen di jaay ay produits war a am image yow nekkee woo dara ci réseaux sociaux yi lu dul di saaga ay nit di wax nit loo xamante ni yow te loolu yëpp benn doomu aadama moo nekk ci seen ginnaaw doomu aadama boobu nag ci showbiz bi la nekk ginnaaw bu mu ñëwee ci showbiz bi la ñu gis showbiz bi commencé jaxasoo jël ay camp teg ko jël ay nitam teg leen su ngeen fàttali ko balaa ñuy commencé ci wàll yi sekk man mii commencé woon nañ ci man ba ñu njëkkee dañuy njëkk commencé ci man ndaxte xëy na arrangé tuma leen information yi ma arrangé wu leen si la ñuy jël benn xale bu jigéen bu nekk ci ñoom ñu wooloo ko Ouzin Keita bi mu woowee Ouzin Keita ñu ne ko woo ko wax ko ne ko waxal Tange moo la def nangam Tange moo la def nangam Bercy Tange Ouzin comprendre ba coow li jëloon fi yëpp yàlla bi dara teewul weer leen ci seen benn sëriñ ba ñu jëloon bëgg ko inspiré ci man pour ma jógee sëriñ bi liggéey bi ñu bëgg a def ñu def ko ci man yaakaar naa ni c'est peine perdue jël sa appartement jël ay nit teg leen ci biir di wut lekk di fa teg wut say sëriñ di wut say sunguf di ci def pour ñu lay topp ñun bokkuñu si ñun dafa am lu ñu gëm am lu ñu yare ñooñu nekk seen ginnaaw nag di waa jooju juróom-benni junni problème ak waa jooju xaw ma rappeur la xaw ma du rappeur di yuuxu di saaga bañ leen tegee loxo ñu jébbal leen procureur ba ñu demee foofu nag doyen des juges teg na leen sous mandat de dépôt jamono jii ñuy wax nag ñu ngi foofu rëbës tëdd ba ñu nekkee ci kaaf ba seen làmmiñ bu rëy bu ñu doon wax yépp dañu toog ci biir kaaf bi di jooy di saraxu ana ki leen ko sant ngir lan jox leen trente mille francs woo la këram may la daal la bu muy leb wala yëkkati blouson may la ko dina naan saagal doomu diw saagal doomu diw ki ngeen di concurrencer ci musique tey daf leen raw ndaxte nit ki sooy xeex moom mën ngaa xeex ak moom ci bu muy def kenn newul bul concurrence de ndaxte Waly Balago Seck dafa jël bëtam teg ko ci Youssou Ndour ne sama papa def na lu rafet Sénégal damay xool fi mu tegoon tànkam ma teg sama tànk ba raw ko kon yéen it su bëggee concurrencer Waly da di xool Waly lu mu def ngeen def ko Waly kuy concurrence ak moom fi ngeen tollu jamono jii ba ca Waly tolloo dafa dem song Zénith fees na feesul song na ko def na fa la mu fay def ba fa waali tolloo dafa dem song Bercy fees na wala feesul muy deuxième artiste sénégalais à part Youssou bi fa njëkk a bi fa waali tolloo dafa ñëw song Grand Théâtre def fa trois jours bi fa waali tolloo dafa song Esplanade Cissesse ba fa waali tolloo dafa song Esplanade Grand Théâtre concurrence bi lu mu rëy rëy foofu la toll téeméeri contrat mu ngi koy signé di dem di jouer ay dîner de gala amul dîner de gala bu ñu leen mës a jouer ngeen jouer ko yéen personnellement kon je crois que su ngeen di xeex da ngeen di war xeex ci wàllu liggéey mais du ngeen jël ay nit ñu làqatu ci seen ay téléphone di saaga ay doomu aadama di wax li leen neex je crois que il est temps que tout cela s'arrête tey nag diffamation ngeen def da ngeen dafa takk diw takk suuf di ngeen wane ni fan la ko takkee ak kan la ko takk ak ban jumaa lañ ko takkee ak kan moo ko fekkee ñaata kilo guro lañ jënd ñaata mbuusat euh, jinjeer lañu séddale ñaata kanet lañu fa defee ak ban imaam ak can ba ñaata la tey di ngeen ko wax yow mi nekk ci sa ginnaaw foofu juróom benn junni problème da ngaa yëkkati vidéo taxaw nga ne Wally Seck du chanteur du peuple parce que chanteur du peuple da ngay am disque d'or Sidi Diop mooy chanteur du peuple moo tax ma ne waxi dof ngeen di wax yow déjà Sidi Diop bi ngay naan mooy chanteur du peuple ndax Sidi Diop dafa am disque d'or nee nga mënul wax chanteur du peuple ndaxte amul disque d'or léegi nga ne kii mooy chanteur du peuple te kooku amul disque d'or kon da ngay wax di weddi sa bopp je que ay dof ñoo fi nekk di wax jëlaat nañu seen beneen dof moom it nekk na ci tiktok bi xaw ma ko xamaatuma ko mi ngi yëkkati ay wax naan xaw ma soo jógee waali demal nga toog saali saalu waali sek man dëgg laay wax te dëgg moom ma ñor du da ngay wax rek yow it toogal procureur mi ngi xaar sa plainte dina la fekk di nga dem tëdd ji am nañu seen beneen dof aussi bu nekk ci ñoom nekk Italie ñu koy wax laay VIP live VIP moom it ci ñoom la nekk xam nañ ko bu baax xam naa la xam nga ma dama yàgg ci showbiz yéen ñëpp dama yàgg ci yéen kàddu bu ci jëpp xam naa kan moo nekk seen ginnaaw kër bi ngeen nekkoon di laam-laamee di yuuxu di wax ni Demba waar Sall defoon jékki-jékki yëkkati ay téléphone naan daf may envoyé message nangam sangam diw ak diw yow diw bi ngay xeexal am na doom am na mag am na rakk am na yaay doo bàyyi ñu tontul seen bopp nga ne yow yaay tontul seen bopp góor bu ne lëng nga war a wuti ji loo nekk nga topp ci benn nit ci ginnaawam amoo palt amoo place topp ci jigéen boo xamante ni jabaram la mu def leen ay courtier def leen ay courtier bàyyi leen seen yooyu jamono ji képp ku ngeen fi envoyé message su ngeen amee sañ-sañ ak fit da ngeen di envoyé nit message wala ngeen woo ko téléphone yoon dañ leen di teg dañ leen leen dugal ci kaso ba ba ngeen ndax ki leen yónni di leen fekk ana tey ki yónni juróom-benni junni problème ana ki yónni tey waa ji nga xamante ni yuuxoo wax ak buuj buteeg ñebbeeg tus nekk ci biir kaso bi di jooy làmmiñ bu réy bi ci écran yi la yam ñemewul gauche ñemewul droite jàpp doomu jàmbur xëy suba ngoon nday asusal bi ngeen di wax xale bu ndaw mësta sëy mësta def nday asusal nee na est ce que man dinaa nangu ñu may takk takk suuf ma bokk ci famille boo xamante ne am yaay am papa ñu respecté leen Wally Seck góor na su bëggee takk takk ñeenti jabar lan lay takk di ko kon je que sos yeeg fen yi ak rambaaj yeeg jaxase nit ñi jaru ko da ngeen di def ni Waly sekk Waly sekk yàlla may na ko building soo yéegee pont foire bi da ngay seen building am moo ko moom naka lu ko liggéeyee en tout cas yàlla may na ko building yow yàlla mayu la building yow ab structure ngay dawal Waly sekk yàlla may na koy oto yoo xamante ni fu mu turne dañ koy escorté yow nga topp ci benn nit yow nee nga ab rappeur nga yow ki nga topp fexeel mu produire la rappeur nga wayal ci sa tontu ko ci sa way nee ko maa la dàq way man dinaa indi disque d'or mais nekk ci réseaux sociaux yi di je crois que loolu moo fi war a aduna kenn yéenewul nit kaso aduna kenn yéen sa noon bi ëpp yéene woo ko kaso mais man dama tiit keroog ba ñu dee ñii def nañ leen sous mandat de dépôt dem leen ngeen xooli commentaires yi sur YouTube ñëpp leen ko yéene ñëpp leen ko yéene ba ñii di leen naan cinq ans de prison je crois que yooyu dafa war a dakk tey dañu xooli vidéo kii nga xamante ni mooy Laye VIP kaddu yi mu doon yëkkati. waale si problème sama copain ngay jéem a plainte waaye doo may. baanu baanu naan la ngay plainte waate yow da yow yow li nga yor ci ay plainte kenn du ko mën a wax yow li nga yor ci ay plainte yow yow police yaa fa plainte ci waykat yi artistes yi plainte waate waaye waa fankuula waaye dam romp waaye kon yaakaar naa ni ñoo seen ndaw vidéo bii nga xamante ni kii di Laye VIP di benn sénégalais nekk Italie yàgg na ci lii saa yu problème amee ñoom ñooñu ci seen biir man dama nekkoon ci seen biir xam jikko yu salte ak yu sawaas yi ngeen di def man nag maay nit koo xamante ni kenn nu ma def loo dara ba ma gisee ni jikko yu salte ak yu sawaas ci laa leen abal ni yàq bu naqadi dem sama yoon man du ma nekk benn nit di ma commandité wala di ma gidaloo di ma def dof di ma saagaloo pare naan kaay ma wala may la benn dàll luy dàll luy quinze mill luy trente mille ñun dañoo judd fekk teranga nit da ngay am fulla am fayda ngeen jàpp nit ñi di saaga taxaw di saaga yow war saaga lii su ngeen xoolee laay VIP su ngeen fàttalikoo jamono ji benn waay bi nekkee États-Unis moom it doon jaay ni ka affaire milliardaire lak xaw ma lamp yi na tàkk te lamp mi daa fay jamono ji kooku ba mu commencé clash waal yi ki nekk seen ginnaaw dem Amérique gisanteeg waa ji si ngeen gis laay VIP commencé def ay vidéo di défendre waa jooju ñu foog ni li nekk ci Sénégal ñun xamuñu ko ba may naan ñi ngi préparé montage yéen ñi nekkoon ci ginnaaw yëpp xam nañ ko deal boobu ngeen di bàyyi nekk ci showbiz war nga am noo xeexee ci showbiz concurrence dafa war a sen Youssou nduur Omar pen yàgg na fi Youssou Ndour Thione Seck yàgg na fi mais musuñu gis ku def vidéo yëkkati kàddu di saaga musuñu gis koo xamante ni da ngay del nit di ko fay naan lay saaga yow li ngay fayee def ko ci cassette def ko ci album Wally mooy artiste boo xamante ni moo fi njëkk génnee albumu vingt titres yow génneel vingt titres Wally def na tournée foo xamante ni yow tegoo fa sa tànk yow ki ngay défendre tournée yu mu mujj def Bordeaux bu mu fa demee matul 33 personnes Ibou Thiombane mi ngi may dégg moo defoon tournée ba mu demee Belgique matul 19 personnes ba mu demee euh, Stuttgart amu fa cinquante personnes kii nga xamante ni def na ay salle bi muy commencé mi ngi teg musique je crois que ku koy concurrence da nga koy concurrence ci loolu teg na building da nga war a teg building waaye dem fekk benn chantier bu ñuy tabax nga jël sa benn nit dof téye caméra moom it mu doon ku matadi bay bëgg a dee ñi koy waxloo yow doo bàyyi kooku waxloo boppam man li may wax musique bi yéen a ko moom Sidi Diop da ngay way am talent euh, euh, Bastoun da ngay way am talent euh, Ibra Naajo da ngay way am talent yéen ñëpp da ngeen am talent tey ki nekk seen ginnaaw mi ngi leen di gasal bàmmeel di leen gasal di leen suul ndaxte du waykat du musicien du tëggukatu sabar amul studio ci ay studio jaamur lay def pour ence leen kon donc je crois bu leen nangu benn geer bi yéen a mën a développer Sénégal xeex bi jaru ko saagante bi jaru ko fii nag képp ku fi saagati nit danañ la yóbbu ci yoon yoon dina la daan daan yu métti je crois que am na yoo xamante ni jaru ko tey su ñu demee ba ci TikTok bi ñi leen di identifier di leen def nii te yéen ñii ñuy génnee nii nag yéen yéen a ci nekk muy vidéo dañu laabal xol yi delloo lépp suñu borom nag moom la c'est le seul éternel ñi la yàlla def ni ma def ni mu def ki ni mu def keneen nañu laabal xol yi te loolu lépp suñu borom nag moom la c'est le seul juge éternel ñi la def ni ma def ni mu def ki ni mu def keneen kon yaakaar naa ni ñoo seetaandoo vidéo bi dafa dem ba askan bi si boppam ñoo ràññee ni que ñii ay vampire lañu vampire maanaam mooy kan moo xamante dafay naan deret parce que nit ku nekk ci liggéeyam nekk ci koyam yàlla di ko suturaal ngay xëy di ko ree di ko wax alors que yaa ngi koy gasal pax di ko bëgg a rey yow li ngay sonn ci ñooñu di nangam sàngam jël ko nga investir ko ci yow musique du réer bés boo fi génnee album boo xamante ni macha allah Sénégal yëpp ciy ànd ak yow soo fi amee ay contrat Sénégal yëpp ay ànd ak yow yow pour am benn contrat à l'extérieur sax c'est tout à fait pour nga dem kër gi ay tournée la ñuy créé ki ko ëppoon ki koy créé mooy doomu Jolof di Ibou Thiombane lu nekk créé ngeen ko fi dara sotti fi Wally sekk kii xeex ak moom da ngay xeex ak moom ci musique ba mu ciy toll wax naa leen ko dafa tegle ñetti jours grand théâtre demal def ñetti jours grand théâtre demal defi esplanade Cissesse demal defi esplanade grand théâtre demal tëgg ji Zénith demal tëggi Bercy demal jëli ay salle demal defi ay tournée mais nga nekk ci Sénégal bi maa feesal five maa feesal nangam sangam di ko concurrencé yéen a ngi tardel seen bopp man nag nee naa leen dëgg laa fi nekkee képp koo xamante ni yaa ngi saltel showbiz bi dama yàgg ci showbiz ku ci nekk ànd naa ak yow ku ci nekk nekk naa ak yow mooy la ma waxoon benn journée yéen fans yi devant la scène la man c'est dans les coulisses ak ñoom ku ci nekk li nga capable xam naa ko ku ci nekk li nekk sa bopp xam naa ko ba ngeen njëkk a créé Youssou Ndour ngeen bëggoon bëgg a xeex ba ngeen bëggee xeex Youssou Ndour fan ngeen commencé ba ngeen fa jógee ngeen tourné créé première rumeur mooy mbaaco takk na Youssou Ndour ngeen jël créé seen rumeur jël seen quelques sites internet yoo xam da ngeen leen di fay trente mille francs ñu bindal leen jeudi mbaaco takk na Youssou Ndour pour yàq der bi c'était peine perdue ngeen indiwaat beneen création ñu nekk ci Covid ñëpp tëdd toog di xaar ba ñu toogee di xaar ngeen tourné lan ngeen indi ngeen ne ah comme Wally jël na timis day def sorti kon de suba mooy jël buzz bi site internet bi presse bi moom la ñuy waxal parce que sénégalais dañoo nam ma génn ngeen jël seen five wut seen pompe à gaz dem ba ci biir pompe ko fa pour yuuxu su ko defee ñaari coow yi bokk xam naa li may wax man li may wax xam naa ko ndaxte waxuma ci benn jour toog naa plateau DTV ak Yves ñi posé ma si question man leen sama yoon nekku ci waaye ka commandité loolu ba ma wooye lan la ma wax yow rek laa doon seetaan soo ci dugg woon rek si télé lay fekk lu tax mu may wax loolu parce que xam na moo nekk ci biir lu ñu ngeen di ruumandaat xam naa ko li ngeen di def xam naa ko li nekk ci ginnaaw xam naa ko arrêté leen te ngeen wuti ji liggéey li ngeen di wax xamu leen ci dara li ngeen di wax xamu leen ci dara man ba may am passeport di dem France amul artiste bu nekk Sénégal artiste laa la wax lu ko commencé A ba Z ko ci Youssou Ndour ba ci ku jëlee suuf ku mën a taxaw ne. Tanger pour mu am visa man maa ko defal invitation amul artiste bu ma mës a defal visite invitation A ba Z nag laa wax amul artiste bu ma mas a jox billet ne ma demal amul artiste bu ma mës a jox compte bancaire am amul artiste bu ma mës a jox dara muy Europe muy États-Unis man maa def sama société am sama compte banquer déposer sama bopp ba may déposer sax artiste yëgul ba may dem États-Unis amul artiste bu taxaw. ne ma man maa jox Tange invitation man maa wutal Tange rendez-vous man maa defal nangam artiste nag laalo lox Youssou Ndour ba ku ci gën a suuf kenn musuma ko defal su dee loolu la ñu dugal seen nopp su ngeen demee ne leen Tange Tange Njaay su ngeen ci amee preuve ngeen génne ko yéen ñëpp wax du ngeen waxkatu dëgg man ba may am visa États-Unis artistes yooyu doon dem tournée sax amuñu woon visa maa leen njëkk am visa ba mu amee ba ma ca waree dem kañ ma booleel muy Babacar Diallo nekk États-Unis liggéey ak mi ngi may déglu su leen neexee journaliste yi wut leen ngeen laaj ko ñu ne ko demal nga wax ko mu wutal euh, rendez-vous ma woo Babacar wax ko ko xëy di woowaat Babacar jëluma woo ko di ko woo jëluma nekk na boobu làq nañ ci suuf ñu ne ko tardel ko su affaire bi passé nga ne ko wut nga rendez-vous amul bi yàlla dara teewut ba ma xëyee ma ne ko waaye jijak man de dama doon wut euh, rendez-vous États-Unis Babacar Diallo lañ ma booleel visa ne ma euh, jijak defal sa contrat de sa société jox ma say këyit ma jox jijak dama déposé le matin ñu ne ma ñaari jour nga fay def leen une semaine loo fay def ma ne ko damay dem touriste ñu ne ma ñëwal 14 heures ma ñëw ñu may ma 10 ans boobu artistes yi doon def tournée sax amuñu visa artistes yi amooguñu visa amooguñu contrat de travail amooguñu permis de travail kon su yee dañ leen gëmloo ñoom ñoom a wutloo visa États-Unis jàpp leen ni que dañuy nax saay ñax leen waxuñu dëgg pour leeral leen rek parce que Sénégal yenn saay dafa jot baax ñuy leeralaate waaw man artiste su amul artiste laa bu yeewoo Sénégal à ba bu ma sa nee sama invitation maa ko defal Tange pour ma am visa man yàlla daf maa teral démb tey soog a ñëw kon su dee loolu leen gëmloo loolu ngeen fa toogee yéen a ngi nax seen bopp man am na ñoo xamante ne tey ñu ngi ci artistes ya man maa tax ñu am visa man maa leen may visa man maa jël samay kayit société déposé leen ñoom ñu am visa kon kuy mayee kon kenn du ko may waaw kon man yàlla dafa ma teral démb fen yooyu ñuy dugal seen nopp laa bëgg ngeen génnee ko ngeen dem wuti liggéey respecte seen ay sœur ak seen ay moo moo gën ngeen topp ay artiste topp seen kër di lekk ak di añ ak ñi leen di jox ay jus ak ay pom ngeen di naan ñi leen di liggéey gauche ak droite sëriñ bu leen neex dem leen def leen seen xërëm def leen seen fétiche def leen lépp waaye alxuraanu karim dara du ko teggi alxuraanu karim dara du ko teggi Ila Touba yàlla ak yonente bi sëriñ Saaliw suñu ñaanu waajur ak ñi ñuy ñaanal ci suuf yor seen course yor seen alxuraan aka ñoo bare ñu ñu bëgg aka ñoo bare ñu ñu sopp aka ñoo bare ñu ñu defaan loolu ngeen foog moo leen di may ndam dama ne dama bëgg ngeen liggéey ji ginnaaw bi ngeen defee lu salte li sax Sénégal ci boppam ñu jóg jéppi leen kenn tuddiwul seen tur Binta Rasoul def journal People Up expliqué fait bi waa The Best The Best suñu nee The Best kat Sidi Diop la woo ko di ko menacé waxatuma Papa Ndiaye sama xarit la fecckat la mais bul dugg ci détails yi dem di woo Binta di ko naan pourquoi ngay tudd Matar Subatel Binta dafa tudd Matar Subatel ku moom xar bi ngeen bàyyi buum bi xanaa yéen la donc il faut qu'on arrête Sénégal ñoo ko moom tiituñu ma Samba tiituñu ma dem bakkan bi def nañ ko addiya Sëriñ Saaliwu Bàkke su dee tey la ñuy dee ngir wax dëgg jàppale ni ko jàkkaarloog ñun tey la ñuy dee donc nañu waxante dëgg te mu toog te ngeen bàyyi xaste bi concurrence bi ngeen wanee ko ci musique bi li mu jot def ci dix ans yi yéen yéen ngi si toll wanee leen ni que yéen mën ngeen plus loolu foofu la leen sénégalais yi di xaar jamono ji muy kooku nga xamante ni but buti la rappeur la di saaga nit ñi ci Instagram yeeg TikTok yi di wax li ko neex ak juróom-benn junni problème di liggéey patisen i si boppam moo warul seetaan nit koo xamante ni amul crédibilité di saaga ay nit ngay jaay ay euh, produit tey bee su ko neexee fan su waal sekk yi say produits yëpp la ñuy boycotté ku nekk xam na ni seen produit alimentaire lay jaay mën nañ ko boycott donc da ngay xool société yan genre nit nga fay teg laay VIP taxaw di saaga nit ñi si sa ginnaaw téléphone ngay saagee nit ñi ngir lan dañ la fay fukki junne wala juróomi junne jëndal la daal te tey sa yaay ku ko saagoon doo ko saaga sa papa doo ko défendre ngeen di défendre seen moroomu góor seen moroomu góor boo xamante ni da ngeen di langal muy langal ngeen topp ci ginnaawam su ñuy wax ay caapataan yéen ay caapataan yéen ñu ñuy fay kon arrêtez d'insulter les gens li ngeen di def ku nekk mën na ko mais aduna nit ñi dafa am lu ñuy jombale seen bopp kon je crois que il est temps que vous arrêtez bis bi yàgg na fi Thione Seck Ismaïla euh, yu su Ndour mos leen si déggante ay saagante kii génne na li kii génne li ba ci Aline Mbaye Nder Youssou Ndour ba ñuy wax dañu naan su Ndour génne na li Aline Mbaye Nder génne na leneen ci loolu lañ leen di xaar waaye Wally su génnee bul ko teg benn interruption dugal la nga ne bul ko teg misère waali su génnee wurus nga ne ngalam c'est pas ki qui développe la musique dëgg bi nag tey dañ koy wax dama nekk ci showbiz showbiz bi mi ngi salte benn clan mooy salte showbiz bi mooy label bu bees bii nga xamante ni jot na fi ñëw donc il est temps que ñu delloo delloowaat xel yi xam bu baax fan la ñu nekk Sénégal benn bopp la ñun kenn mënu ko xar ñaar kuy lu yàlla tudd ci déewu doomu aadama kenn mënu ko ko tere ba tey ji nañu déglu ji am na yëbbante àq la mobile bu Grand Yoff moo ma ko yóbbante te dinaa ko teg Tange maa ngi lay siyaare Tange li ma la doon wax li doon waxtaanee démb dama bëgg jël sama temps limal la ko benn par benn nga journalal ma ko noonu ci waali waaw boo ko neexee it moom na jot ci vocal bi damaa bëgg nga ne ñii di lappi lappi ak di tëb di dal naan ci kaw waali la ñuy dal dama bëgg nga ne leen ñoom fii ñu toll nii naan waali waali waali di xeex ak waali di xeex ak waali bi ñu jël ko def ko ay soirée bi fi waali di toll ñoom ci at yi ñu toll ci succès bi ñu toll xam nga lu waali def dafa tëgg Zénith bi fi waali toll nga lu waali def dafa tëgg Bercy bi fi waali di toll xam nga lu waali def daa tegle grand théâtre ñetti fan di xaar ku ko ci fekk si bi fi waali di toll xam nga lu waali def daa dajale orchestre am yëpp biir grand théâtre may ñëpp oto c'est-à-dire guerre bi nañ ko teg foofu mooy liggéey bu am preuve ba mun cee teralaate mais nañ bàyyi liggéey bi ñu bëgg a jël teg ko léegi nag ci vie privée showbiz la ñuy def mais defuñu vie privée bi Wally di toll ci succès yi ñuy toll ñoom Wally daa bàyyi Youssou Ndour woote ñu ne bu Youssou Ndour wootee xale ñemewul woote Wally woote kenn far place def ko entrée cent mille gisee fermé ko fii la fekk nit ñi. bis waal di toll ñoom fii ñu toll taabul un million lay jaay nañ jël liggéey bi teg ko foofu noonu te bañ koo teg feneen nuyu naa la. yóbbante àq la loolu la mobile mbër yóbbante kon je crois que il est temps que ngeen seen xel xam na ni que li ngeen di xeexee sénégalais yi xam nañu ci te yóbbuwu leen kanam yàlla du ànd ak kuy tooñ dëgg la yàlla àndal ki ngeen di tooñ tontuwu leen waxu leen yàlla mu ngi koy gën a yëkkati jamono jii ngi wax ak yéen na ñetti dat Gàmbi le 24 le 25 le 26 jël leen dat Gàmbi mi ngi jëm euh, Milan le euh, le vingt quatre mai mi ngi jëm Valence le vingt sept mai mi ngi jëm Gothenburg Suède euh, le vingt trois juillet dem leen jëli ji date yooyu je crois que xeex bi foofu la toll jël ay nit di leen yóbbu ci réseaux sociaux yi saaga ay doomu aadama mosoo leen gis musoo leen teg loxo continuer leen di saaga rek yow cogg boobu nga foog ni man dama soxla toog kër artiste Wally Balla sekk buntu këram xaw ma couleur bi nu mu mel Wally fu mu dëkk xaw ma ko sax dama koy dégg amul artiste bu ma xam këram. amul artiste bu ma xam këram Youssou Ndour de romb laa xam ñu ne ma fii mooy kër Youssou Ndour man bokkuma ci ñuy toog kër artiste man bokkuma ci ñuy tàllal loxo man damay ànd ak artiste nga am naqar ma yëkkati sama alal teg ci damay ànd ak artiste tabaski jot ma jënd xar yëkkati jox la man damay ànd ak artiste nga am dëj ma yëkkati sama oto duy ci la ma ci war a duy tegal la ko man damay ànd ak artiste nga dem tourné ma ànd ak yow hôtel jot ma dugal sama carte bancaire dugg fay Bakkan Seck doy na seede journaliste ngeen yéen ñëpp am ngeen numéro téléphone Bakkan Seck dem leen ngeen tàllal ko micro ngeen laaj ko demleen leen ci waaye bu leen ma taxaw wax s'il vous plaît su ko ngeen xamul da ngeen xamul man damay ànd ak nit ci ngor ak fulla ak jom su ma demee gis ne que nag am na ñu ci rax ay yëfu tappale af yu soxal man du ma ànd ak kuy tooñ dëgg laay wax te dëgg laay teg kon jamono ji kooku di juróom benn problème nekk ci tiktok bi mbelelelelelelelele kële nekk fële buut buti daf ko takk tokk suuf uli sekk faatu sekk léegi da ku leen dugal na leen génnee su doon moom am na doole am na doole bi muy wax am na doole bu muy wax Sénégal jamono ji yaakaar naa ne injustice dootu fi doxati fekk maa ngi dund am na doole ki leen fa yóbbu jaar na fu nekk pour ngeen gën def fu ngeen mujjee toog ci kaaf bi di jooy yéenewuñu leen ko su ngeen jógee foofu ngalla la vous êtes des jeunes ay sénégalais ngeen ñuy ay sénégalais nañu defaraat xol yi dañuy tàppewaat xol yi liggéey man Sénégal laa gis ñoo xamante ni tey dañuy toog di xas seen bopp muy benn chanson bu bees mbojo mbojo yee seen bàyyi ñëw na ñu ne waaw waaw seen bàyyi ñëw na mbojo mbojo yi ñu ne seen bàyyi ñëw na ko ki nangu nekk seen baay nee na moom mooy baayu mbojo mbojo yi maanaam lépp luy xeetu mbojo mbojo man maay seen baay ñëw naa ngeen taxaw di saaga seen bopp ngeen foog ni loolu succès la il est temps que ngeen yeewu réveillé TikTok bi biñ koy defar dañ ko defar pour ñu liggéey ci pour ñu divertir ci pour ñu foo ci pour ñu échanger ci WhatsApp bi loolu lañ ko defee mais c'était pas pour dénigrer les gens vous avez essayé de dénigrer les gens depuis belle lurette toujours ngeen daanu lu ngeen fi tëgg yëpp mën naa leen ko génnee rétroviseur Papis Niang su ngeen jëmee ci moom mu génne leen rétroviseur li fi xew 2014 yeeg yëpp ay nen yeeg suul nañ ko fi yeeg lu ñu programmé ñu orchestre yëpp mën naa ko fi teg neewoon naa leen moytu leen ma wax su ma waxee du baax te dëgg moo tax may wax pour askan bi yeewu am na ay nit yéen a ngi leen di gis ñi leen di jaay mbaax lu ngeen wax ñi yóotu ñu jox leen dañuy leb fii leb fële dugal fee dugal fee du seen mbaax yoruñu ko ku ko yoroon da ngay teg sa building ni waali tegee building da ngay jënd say oto teg moo xam day jënd otoom di jaayaat jënd beneen oto jaay mi ngi ciy am bénéfice waaye doo jël sa benn oto bu ndaw wut say ngan dim pën dugal ci ci jël ay booy yoo xamante ne ay arriviste lañ nga bëgg leen dofloo ñooñu ngeen di dofloo xam nga da ngay yeewu ndeysaan dafa am benn waay boo xamante ni dama ko xamoon bu yàgg mu proposé ma dafa bëgg benn liggéey ma ne ko incha allah ma toog juróomi at voyager am ku soxla benn liggéey ma woo ko ma ne ko demal nga defi ji mu dem defi jóg te yàlla xam na ne xaw ma ko sax fàtte naa kanam bi mais benn jour dafa dem euh, photo Youssou Ndour muy Grand Théâtre mais bu mu taxawee ci kanamu Youssou Ndour daf ma yónnee benn vidéo di ñaan laa ilaha illallah musuma woon xalaat naa taxaw bu photo kanamu yu Ndour yow dama lay ñaanal nangam sangam tey kooku moo njëkk a nekk sama ennemi kooku mooy wër di ma dénigré di ma wax mooy li ñuy wax rek nit koo fekk mu tilim nga sanga ba mu set solal yere yu set lu ma la def lu la yëg ndaxte mbëggeel ba moo tax kon àdduna da ngeen di dellu si arrêté de parler xamante nañu bu baax suñu biir li may wax ñii yéen ñi may dégg xamante nañu bu baax suñu biir xam ngeen li ma xam xam naa li ngeen xam yam leen xam ngeen ban genre nit laa su dëgg jotee dama koy wax tey nag su ma àndeeg yow ngir dëgg ma gis na nga génn ci yoonu dëgg dem ci yeneen détail dama la fay teg ni yàq bu naqadi dem xool fi dëgg nekk ma ànd ak moom amul lu may tiit amul lu may ragal ba ma waali ba may def journal su ma gisee erreur ci moom damay toog wax ko ba may toog plateau bi ju ngoon di ko naan Zénith Pape Diouf moo ko njëkk feesal damay naan Zénith euh, daara ji Baaba Maal di wax neexu leen woon mais ci dëgg laa koy teg ci dëgg laa koy teg dëgg jooju nag laay ànd man nekkuma fii waxal ma man maa feesal fii cent personnes deux cent personnes dem leen liggéeyi ji muy li ma leen indiloon ci kaawu rapport jooju but buti ak juróom benn junni problème jamono ji ñu ngi sous mandat de dépôt en attendant justice di leen déglu diffamation lañ def calomnie jaan doomu jaamur nga ne dañ ko takk takk suuf tey su amee ku ko doon waaj a takk su retiré woo looy def est-ce que mën nga loolu nga ne yow yaa ko fekkee am nga preuve yi di yuuxu nit ñi di leen déglu sénégalais yéen laay waxal ñii ngeen di déglu nii ay nit lañu ay objet lañ leen jàppee seen moroomu góor moo leen téye di leen fay ay juróom-benni junni ñeenti junni koo xamante ni banlieue nga dëkkoon puqus ngay fanaan wala nga fanaan sa benn néegu copain tey ñu jëlal la benn appartement nga ñëw teg la tànk teg ay fauteuil jàkkaarlook écran plat nga ne kii mooy yàlla ponkal bu toll ni juróom benn junni problème su toogee jël moromam moromam koo xamante ni moo ko mag dinaan sama papa nangam sama papa nangam. <laughs> non franchement parler dama xamatul Sénégal ana vergogne ana dignité tey ñi gën a ñàkk dignité ñàkk ngor ñoo occupé réseaux sociaux yi di wax Sénégal ñi seen wax jaratul door seen doom en tout cas muy éclaircissement bi ma leen indiloon ci kaawu kii nga xamante ni moo ne Ndeye Astou Sall Wally da ko takk takk suuf ak juróom benn junni problème bii jàpp doomu Thione Seck di Wally Ballago Seck di saaga yoon teg na leen loxo ñi ngi sous mandat de dépôt ku yàqu yi diina ku yàq dëgg la man li may la